demaguñu fenn tawagul day wis day wis Kër Masaar mel nii meeru Kër Masaar bi anamu xam nga lii dafa ñaaw lii du yoon lii du dëgg du yoon anam meeru Kër Masaar bi anam Kër Masaar bi lii c'est grave day wis lii day wis nii de wis tawagul léegi bu tawee fan la nit ñi jëm lii ah yéen a ngi gis ah ah gis ah anam meeru Kër Masaar bi lii sa grave amoo foo jaar te day wis rek mouvement ànd daaneel maire yu amul njëriñ yi maa ngi ci kawam nag ñëppay daanu maire yu amul njëriñ ñëppay daanu lii du yoon barke Serigne Bamba Mbàkke lii du dëgg du yoon dëgg du yoon lii même pas taw wis non fépp lay dem fépp laay dem tey laay wër dëkk yëpp dëkk bu ci baaxul ma dénoncé la